mooy def audit def contrôle vérifier. Mhm. gis ay éléments probants jël éléments yi mettre ko à la disposition de justice après justice bi def liggéeyam. Mhm. te si loolu la ñu def bi ñu ñëwee dañ ne il faut qu'on fasse l' état des lieux état des lieux boobu nag bi ñu ñuy def noonu on va faire ça dans tous les services. Mhm. dans tous les segments et dans toutes les parties yoo xam ne moom moom mooy état bi ku si nekk lañ la jox. di nga def état des lieux ndeyla mooy def na ko. keneen dina ko def beneen service dina ko def beneen service dina ko def mhm. ne gis xam ne lii jaarul yoon muy détournement public muy luubal muy lépp mhm. dina ko jël jox ko justice mu def liggéeyam. Mhm. même comme li ma waxoon sànq temps justice ak temps exécutif du benn. te mu ñu fi nekk nag pendant dix an xeex Macky Sall si ni muy doxee ak justice boo di jël justice def ko bras armé. ñun ñu ñëw tey encore bugg a feexal bugg def la même chose. loolu pour man non képp koo xam ne ñu la luubal war nañoo topp dama ne la ñun ba xam ne la moo tax moo tax ne loolu moo am sañ-sañu ko hmm. ñun mënuñ ko def parce que man su ma mu nekk président de la république hmm. aw ma droit wax magistrat wax wax justice ne ko jàppal kii tëjal kii c'est loolu loolu loolu duñ ko nangu parce que loolu bu ko Ousmane ko defee hmm. bu ko président Bassirou Diomaye Faye defee ñun ñoo xam ne ñoo ànd yàgg ak moom di xeex ak ñoom pour loolu dañ fi ñooy taxawaat xeex moom ne loolu